ngir sàmmonteeg war may dëkk bu sell bii di Touba loolu yi nekk bëgg-bëgguk njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil diina ñu jóg taxaw temm ngir jëmmal kàdduk xalif général des Mourides ginnaaw ba mu sàkkoo ñu wattandiku lépp luy ay yëngu-yëngu ci dëkk bu sell bii di Touba loolu yi mu nekk lu mu bëgg mu daal di dakk lool njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall jóg ngir fas yéene dakkal lu ni mel ci biir Touba ginnaaw ba ñu nemmee ko ay manifestation dëkk bu sell bii di Touba ci aljuma ji ñu weesu ci talaata ji fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2024 ji mboolem bay Faal yi wàcc ci terrain bi dooree ko ci rond bi nga xam ne mooy entre Touba foofii ñu daal di fay nemmeeku ñu yor ay yett ak mboolem lu di ngànnaay ngir fas yéene jàmmarloog manifestant yi nga xam ne taxaw nañu temm ngir xotti war may dëkk bu sell bii di Touba. waaw sëriñ bi nag wax ni nañ ci gar sunu bakkan noonu nañ ci teg sunu képp kuy politique wala ngay manifester booy boo nga fas yéene defee ji ko mbake mbaa feneen waaye képp ku ko defati si lu tur turu Touba donte da ngaa jéggi rond point bii deux mètres danañ danañ jàmmarloo ak yow loolu la leen sëriñ bi sant wax na ne su ngeen si deyee baax na su ngeen si rayee baax na waaye li sëñ Touba bëgg day am kon bañatuñ si dara nag waaw moo daan ñu jóge nii moo daan ñu jóge nii faggandiku nag pexe yu ñu mën a jël rek jël nañ pexe yu ko raw te ëpp nañu pas-pas kon nag ñoom nañ xam ne li sëñ Tuubaa bëgg tënku si mooy seen njariñ suñu ko defee muy jàmm suñu ko defut it gàcce rek a siy mujj. moom Serigne Dame Soda Fall muy wéy di dànkaafu ñi mu jàpp ne ñooy amal ñaawteef wu ni mel. ñoom ñii def politique bi nag muy acteur politique yi am nañ intérêt bu dee gëm nañ sëñ tubaa ñu lii sëñ Muntaxa wax ñu ànd seeg moom mënuñu ne gëm nañ sëñ tubaa ba noppi weddi sëñ Muntaxa loolu mënul nekk ku nga wax te te te defe noonu li amul kon nanu nanu warmaal sëñ Touba nañ sàmmal sëñ Mountakha kàddoom gii moom rek la am. Serigne Moustapha Mbar mu Serigne Modou Aminata Fall di xamle ne ñoo ñi daañu fexe identifier leen ba xam ci yan bërëb la ñu bàyyeekoo li war ci ñoom ñu def ko. ñuy seen ndey far benn ku ku ku ku ci mbedd mi toppal ba sa kër bàyyi. bu fekkente ni li ñu tubaab tere sa bàyyi sa bàyyi la ko digoon nu mu boolaa sa bàyyi génne su fekkee daa sa bàyyi nu génne bàyyi fa sa bàyyi waaye nu bàyyi wormay tubaab ñi xëy suñu borom ma ko wormaal nag soo bëggee worma ci fa sa borom la mu wormaal danga koy wormaal loolu dong la ko defee. Serigne Falilou Fall mu Serigne Modou Aminata Fall di xamle na ndigal li Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides da fedd li ci Serigne am ni Modou Mbenn Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall loolu tax moom Serigne falilu Fall nekk jëwrin ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall di gën a ñaax ndaw ñi ngir ñu gën a sàmmoon teg kàdduk xalif général des Mourides. kon nag ci ndigal Serigne Mountakha Mbacké lañuy waxee. muy wax nag ci ndigal jëwriñu Serigne Fall si Modou Fall monsieur Modou Mbène ak mboolem njëwriñu gépp di la xamal ne ndigal jóg na jógoon na sax waaye daa jógaat sëñ bi daal na liggéey bi daal ñor na ko lool muy si orma ji bëgg na daal ñu ormal dëkk bi ormal sëñ bi ormal sëñ bi nag mooy ormal suñu bopp ndax kenn ku ne yaa wax ne joxaan sa bu àddina àllaaxira lu ma digal ma def lu ma tere ma loolu nag asgor su ko waxee ne moo da ci boppam dara kon leen am léegi mooy ndigal su bi digal na nu kon ku si yaakaar na seen Tuubaa ak foo ko mën a yaakaar foo mën a ne na nga maas ci ormay Tuubaa ji nga sàmmal ko sëñ Muntaxa sàmmal ko suñu bopp sëñ Muntaxa Mbàkke joxe waat na ndigal ci ndigal si am diwal mu sëñ ji dëkk bi warmaal sëñ Tuubaa warmaal njaboot sëñ Tuubaa gi am yar ak teggin sax ci ak jub te wat ndi ko ay tëree sëriñ Daam Sooda Fall di xamle ni taxaw nañu temm ngir li fi amoon aljuma ji weesu ci dëkk bu sell bii di Touba dootu fi am jëkk nañ bis bu yàlla sakk tout le temps bis bu yàlla sàkk bala ñu koo xam rek nañ ko woote balaa am cinq minutes nu fekk leen fi ci magaluk maam bu Ndiaye gi weesu lu mel ni kii di Serigne a Bintou Fall jotoon na ko firndeel ci kàddu yu mu yëkkati woon ci jataay bu ñu seqoon ak moom. nga Baye Fall mm. euh, day day day day ab communauté bu yaatu. Mm. bu fekkee dañu tànn euh, ay cinq person wala dix personnes wala vingt personnes indi leen foofu ngir yaakaar ne manifeste du nekk loo xam ne luy déborde la ñu indi leen ñu taxaw ay dix personnes vingt personnes taxaw jékki-jékki gis ful boo xam ne ful boo xam ne ay mille person lan wala wala ay cent personnes euh, loolu tax Baye Fall daw parce que Baye Fall dañuy taxaw riposte jàkkaarloo ñoom waaw ndax amul benn Baye Fall boo xam ne mas ngaa jot ndigalu Serigne Touba di ci ànd Seex Baayu Góor